man maay Cheikh Tidiane Niang man maay responsable lu ouvrier yëpp yi nekk ci entreprise bi. lu tax ñu woote dafa am loo xam ne dafa xew depuis ñu bëggoon ko leeral. yàgg na trop boobu ba tey ñu ngi ciy wax mais di ñaan sunu promoteur bi boobu ba léegi ñu ngi koy ñaan mais mu ñuy bañal ne moom bëggul coow bëggul wax bëggul histoire boobu ba léegi dañ ko forcé weñ loxoom pour mu mën ñoo may lii tey am. li ñu bëgg leeral mooy li fi am rek manigancement yi am si biir yëpp. ak ñi nga xam ni dañuy yàq ak ñi nga xam comprendre ñu am ñoo xam ne am ñoo dañuy dox biir di depuis ñu ngi fi mosoo fee gis ko blessé mosoo gis ko fa ngi fi depuis boobu ba léegi ñu ngi fi ñiy wax dañoo xamul dañ leen di ñaan ñoom bu wax bala ñuy wax nañ ñëw xool wala ñu ñëw nañ leen suñuy ñu pour xam li fi nekk lan la avant ñuy wax ku Eric autorité yëpp kenn mosu fee yi nekk ci zone bi kenn moo fi ñëw ku ñuy wax Eric moom moom moom auberge bu ñuy wax Cœur de Lion moo fi mas a ñëw fekk ñu ci buntu bi ñu taxaw mu freiné taxaw ne ana seen patron ñu ne ko dafa voyage fii ku fi dugg ak ku fiy génn heure bi nga fi duggee heure bi nga fi génn dafa nekk ci registre bi pour moom bu fi nekkul à son absence ñu man ko bu ñëwee ñu ne ko diw ñëwoon na fi moo fi ñëw moom Eric bi mu fi ñëwee mu taxaw ci buntu bi ne li xamal leen seen patron ne ko bu ñëwee ngeen ne ko lii mu fiy def du fi am te bu ma si mënul dara dinaa ànd ak le maire ak jabaru ministre bi sama xarit la pour combattre ko mu jóge fi loolu lañ bëgg mu leer moom moo ko wax moom Eric léegi bi mu ñëwee si bunt bi fekk ñu taxaw mu ne xamal leen seen patron ne ko bu ñëwee mu fi def du fi am dana ànd ak le ministre ànd ak le maire pour combattre ko mu jóge fi da buñ xoolee depuis 2015 la waxoon loolu tey ñu ngi en 2018

ñuy wax ni day dafa am toxique day yàq nab fii ana lan lañ fi monté loo xam ni dafa am acide day yàq nab bi yéen ay journaliste ngeen xanaa war ngeen a mën a gëstu yéen a ngi si bërëb bi wan leen ñu loo xam ni day yàq nab population bi dañoo comprendre dañ leen di ñaan nañu ñëw ku si ñëw ñu ubbil la suñuy bunt bu dee benn nit sax danañ la wan visité loo la ñu xam parce que ñun fii lañ juddoo fi lañ yaroo kër gii fi lañ bokk te kenn mënuñu fay génne ñu nag ñoom ñoo fi bokk Lamine Diallo jiite ñu ñun ñëpp ñoo fi bokk te kenn mënuñu fay génne. beneen point bi may leeral mooy dama seetaan benn conférence de presse am benn kilifa buy wax ni liggéey si usine aluminium dugg si gaal yi xaroo gën ma koy xamal ni ñun jeune dawal dawaluñu jakartaa di xaru dugguñu si gaal di xaru usine aluminium bii moo ñu gënal ndax ci la ñuy yore suñuy waajur yore suñuy jabat yor suñuy dom di si tedd di si ñaq di si jariñu Da amul benn gàllankoor te amul benn gàllankoor ñu ngi nii si ngi fi da bu dee am xanaa ñu ñëw njëkk a dee fii ñaata forage moo fi am ñaata teen moo fi am si la ñuy naan si gisuma fi luy asip. napp fii amul asib amul toxique suñu président emploi jeune yi moo ko moo a intéressé parce que ay am emploi jeune yi la visé dañ leen di ñaan ñii di yàq nañ leen teg fi ñu leen war a teg parce que boo xoolee auberge bi tey dafa nekk ci suufu haute est-ce que am na këyit yi ñu am ñun loolu lay laaj man ay haute nga jaar la auberge ci suufu haute mu nekk ci digg auberge bi ndax am na këyit yi ñu am bu xeex day am moom lañu war a xeexal ndax population bu fay dund di fa fanaan naka yeew ñu ngi ci danger dañun dugguñu ci loolu taluñu ko sax ñun dañuy xool lu ñu ñàkk jariñoo man a jariñ suñuy waajur jariñ suñuy rak jariñ suñuy dëkkandoo xam lu tax mu bëgg mu bëgg ñu fay jëlee parce que ay clientèle dañuy làqatu ci auberge bi dañuy làqatu bëgguñu nit ñi gis leen da fii day am population 150 employés bu ñu génnee fii ku dugg fii ñu gis la loolu moo waral loolu loolu kese moo ko waral làqatu bu metti da ñun def li ñuy def làqatuwuñu mi ngi ne fàng ubbi suñuy bunt ku ñëw dugg ñun làqatuwuñu de bu làqatu am moom mooy làqatu moo moom mooy mbubboo moo dugal maire bi ci piège dugal ministre bi ci piège mais nag bala nit koo xam ne étranger la doomu réew mi kër kër yi doon xale di kër kër yi ba dem Espagne kër kër yi am alalam ñëw bàyyi fépp ñëw ba Thiès gi juddoo yaroo fi màggee fi ànd ak jeune waa Thiès bokk si zone xoolal nga taamu fépp fu ne am na fi Thiès mais ñu taamu kër Issa ànd ak ñoom di liggéey ñu si gis seen bopp ah kër Issa di si gis seen bopp waa kër Issa di si gis seen bopp école kër Issa ba cyber ba fa nekk ñoo ko fa def zone bi ñuy wax cinquante mètres fii kan moo fa dëkk sama kër a nga fa këru kii a nga fa këru kii a nga fa këru kii a nga fa suñuy kër la ku ko jënd promoteur bi moo ko jënd may ñu ko loolu maire ñu ko président mënaluñu ko kan moo ñu ko mënal kon kooku dañuy ànd ak moom xaru bu dee dee nañ dee mënuñu ñu fee jëlee dañ leen di ñaan nag monsieur le maire dama koy ñaan mu ànd ak son conscience tranquille mu xalaat bu baax ci li muy dugg parce que am na jeunes yoo xam ne moom moo leen jiite te ñu ngi fii di liggéey di daan seen doole mënoon nañoo taxaw këram di ko ñaan kër guñ dëkk wala di ko ñaan dépense defuñu ko de dañ ko koo wàccee kon ko ko ko wàccee war na koo jàppale. lu tudd Mansour Niang dëkk fii mel ni Fall eh, dama gis ay nit ñu def seen mobilisation daxaw fii ci tali bi di wax assassin reykatu nit ma bëgg leen la leeralal ni kii nga xamante ni moom moo fi jóg te di liggéey lii amul intention rey nit kenn gënu ko doon jullit ku nekk nag am nga droit seede li nga fekkee moom fii ci dëkk bi mu dëkk ku ne defal na la fi teraanga ku ne sekk na ko feeg yow e, waa ASC bi nga xamante ne ñoo nekk Kër Issa année bi ñu jël coupe jàppale na leen ci lu ne

nasaraan si yàlla dimbali ko mu ñëw investir si réewam ñun jeunes yi nag ñun liggéey rek lañ sekk ak moom amul ku fi mës a toog mu al desel la weer wala lu mu la faylu fi lañ yor suñu njaboot fi lañ yor suñu kër yor suñu teraanga sàccu ñu agressé wuñu xeexuñu kenn ñun duñu xeex liggéey moo ñu tax a jóg. et eh, ba loolu weesoo ñi nga xamante ni ñu ngi koy coow ñoom ñi nga xamante ni nii dëkk bi bu yàggul rek damaa dajeeg sama benn xale bu nekk kër jour bi mu koy njëkk gis jour boobu dama ko jaay benn nag maa ngi ko jaayee 350 mille mu tombeek tam xarit du ko yóbbu fii ci jàkka ji di leen ko dimbalee ñu koy def ay tong-tong ñu ci ko séddoo ci biir bi ma teewee fi loo xamante ni camion bi la ne bu chauffeur bi ñëwee ngeen jël tonu ciment bi ngeen ji nekk ay tonu ciment ne ma yóbbul ma ko ji nekk taxaw kon nit ku la man fi ni nii na camion mu ay arrosoir ay brouette ay château yóbbu ko prison dixième ñun nous ñu def dara lu yor yi nit xalaatuñ ko ndax fi lañ dëkk fi lañ yor suñu njaboot ci ndox mi la ñuy ci ndox mi la sangoo ci ndox mi la utiliser le. bonjour je m'appelle madame Guèye je suis gestionnaire administrative et financière ici dans l'entreprise euh, Betty Pen. En fait, je voulais éclaircir un peu par rapport à, aux, aux gens de, de Cœur Issa qui, font des marches pour dire que l'entreprise, euh, euh, plus précisément la fonderie d'aluminium, crée des maladies ou cause des problèmes. je voulais éclaircir que ce n'est pas, ça, puisque nous, qui sommes employés ici, nous n'avons aucun problème de santé. Nous venons tous les jours ici, du matin au soir, on passe la journée. Le promoteur lui-même habite dans, dans, ce lieu. Donc s'il y avait des problèmes de santé, lui-même, il serait le premier à tomber malade ou nous les employés. En plus de cela, nous avons une ferme ici à 50 mètres. Nous avons une ferme de, des arbres fruitiers. nous élevons des, poulets de chair, des pondeuses. Donc s'il y avait un problème, nous, serons les premiers à y souffrir. Donc nous demandons à ces gens-là de nous, soutenir, de venir vers nous. Nous allons travailler ensemble, bâtir beaucoup d'emplois dans, dans cette zone-là, accueillir les jeunes de Cœur Issa, pour avoir un emploi. Parce que nous, constatons, nous tous, que le Sénégal actuellement, il y a trop de chômage. Donc si un promoteur vient ici pour créer des emplois, nous devons les soutenir au lieu de les créer des problèmes. Il y a deux de nos collègues qui doivent aller en formation en Inde pour être formés comment, comment ils utilisent les machines, les fours ici. Donc cette opportunité-là va, va, va nous aider peut-être à ne plus sortir du Sénégal. Par exemple, si ces deux-là vont partir en Inde, accueillir une formation, s'ils reviennent ici, donc nous n'avons plus la possibilité d'envoyer encore des gens. Ces deux-là vont continuer à former les jeunes qui sont là. Donc ça, c'est une bonne perspective. Le promoteur, il a toujours investi dans le quartier. Il n'a jamais eu de problème avec, la, population qui est là. il, il aide beaucoup les gens ici mais lui, il est tellement humble qu'il ne passe pas tout son temps dans, les médias ou bien dans, le quartier pour dire j'aide telle personne ou telle personne. Donc ces gens-là, ils se reconnaissent ils ne doivent pas lui mettre les bâtons dans les roues pour, empêcher cette, entreprise-là de fonctionner. Vous voyez, nous allons créer plus de 160 emplois ou plus. Donc si ces gens-là ont un auberge ici, et l'auberge là va, va accueillir des gens et ils savent que les, les employés qui sont là peuvent par, exemple connaître quelqu'un, ça ne les arrange pas, ça peut leur faire perdre des, des clients et tout. Donc c'est suite à ça qu'ils veulent juste nous, nous, nous empêcher de mener notre, notre entreprise. Pour moi, c'est le, seul, le seul problème. Ah, je demande aux autorités de nous soutenir. Parce que si nous, on n'est pas là pour se battre, on est là pour, pour travailler. On ne connaît même pas la bataille. Donc on est là pour créer des emplois, pour aider les gens. Donc les autorités ne doivent pas nous, tourner le dos, ils doivent venir nous aider, nous soutenir pour bâtir ces, ces, là